tey scandale yu bëri yi nga xam ne moo moo tegu ci ndoddom ba nekkee ba tey ñun sénégalais ñi ngi xaar mu lijjantil ñu ko ndax boo boo wootee jub jubal jubanti bëgg développé raayu développement fi muy jaar da nga ko war a baliser moom baax rataxal ko moom ratax raayu nag weesuwul ay nit moom dañ ko nommé dañoo sénégalais ñoo fal Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. Mm-hmm. Bassirou jomaay fay ëlbatiku nommé ko moom jébbal ko lenge yi mm-hmm. moom Sonko mu tànn ay nitam teg leen fa ñooñu mu tànn teg leen fa plan plan wu boobu nga xam du plan wu dara plan wu ndaxe mbaay la ñooñu nit yooyu ñoo war a doxal boobu les plan waaye léegi ndaag ma laaj bu dee nit yooyu du war a doxal plan ya jubuñu dañuy dëng-dëngal kon plan ba kañ lay kañ lay sotti moom ma fàttali ne fi Sénégal yi di xaar bu tontu fa ba tey yooyu fa yàbbi dégg nga démb Bassirou Diomaye Faye ba mu jëlee parole nee na ils vont lutter contre la corruption yéex nañoo lutter contre la corruption lutter contre la corruption weesuwul Azergate bii ñu accusé DG ba Jean Michel Kankan moomu ñu accusé ko ma xam naa ne seen la seen ma ma ma maa xee tooñ naan ko Jean Michel Kankan waaw ndax moom saan dama ko sax yërëm yëgul lu xew ñu boole ko ñu jël ko rek boole ko ci mbir mi mhm. Jean Michel Kankan moomu mhm. mooy Jean Michel seen mhm. nourrisson boobu bébé DG boobu ñu jël ko jox ko luñ ko jox mu demee nu mu demee laaj bi ñuy laaj tey mooy DG boobu kan moo ko jox ay ordre mu def li muy def pourquoi il est toujours en poste euh, euh, banque Santander mi nga xam ne dafa libéré déjà balaa balaa daraa xew mu libéré déjà trente sept milliards de nos francs te benn câble sax bu gën a ndaw xëccuñu ko ci benn poto lampe ba lampe di dàq banque am di réclamer son argent xaalis Bob, fan la dugg fan la xaalis boobu dugg pourquoi ba tey jii aujourd'hui ministère de tutelle Jean Michel Kankan moomu génnul wax moom Sonko génn ca wax pourquoi Euh, eurobond bi commission génn fa fan la commission yi dugg ku ko lekk kan moo ne dërix commission eurobond ba port mii waa jooju kii bojaan def mm-hmm. mm-hmm. def na mu recruter def na daf yëngal jël copain boo xam ne ñu ko dàq ko ñu jël dugalaat ko jox ko ay marché mm-hmm. jox xaas bu dul jeex mu ne ko dërix dal tàqul coow géej gi débordé wul dara xewul mhm. ba tey ba sànq griwul mhm. mhm. onage nag démb gis ngeen ne Cheikh Dieng woo nañ ko waaye wooweew ñu ko wooweew ñu ndax loolu tamit foog mu leer wooweew ñu Cheikh Dieng pour plainte bi ñu xam nga ministre de la justice ba mu taxawee assemblée nationale nee woon na leen le procureur s'est saisi plainte boobu batay tey ba sànq France daal di ko dem Cheikh Dieng li ñu ko auditionné wu ko ci plainte bi contre X bi Thierno Alassane Sall déposé woon c'est dans ce cadre là que Cheikh a été entendu avant lui l'initiateur de la plainte en l'occurrence Thierno Alassane Sall ndax bu yemoon ci ñom donc duñ ko wo ndax Cheikh Tidiane mi nga xamné quand Bassirou Diomaye nous parle de lutter contre la corruption mais il a un cas d'école boo ne ko table bi mu tok di dafa euh, ba mu geesu a Cheikh Tidiane Dièye nga xamné il a été accusé nommément par son DG avec des documents à l'appui de corruption ñu ko fa donc les milliards les milliards dont le, Sénégal a besoin pour se développer mais ñun nekk ñu sax actuellement

Il y a quatre gros scandales. Milliards, nous avons dit, moi, je suis révision des comptes. Moi, je suis en train de Mais milliards, il y a des gens qui ont dit, je suis Sous la couverture de Jomai Faye, président de la République. Mais nous avons dit d'abord, ces milliards là, milliards circulés, sont nous, quand nous avons des dérives, rire, de rire. Pas pareil? Nous avons dit, de pas donc les gens leneen te tamit prononcé sur ces quatre gros scandales là comme ensemble, Sénégal 2050, ben, je rejoins Bougane Gaïdani mhm. qui parle de plagiat de non mhm. et de saupoudrage mhm. tout court les âmes qui n'y sont les leçons mooy ñi nga xam ne dañu la nax ci projet seen officine dégg naa démb gis naa démb ñëpp ñuy jubilé naan waa projet ba